kii Montero. Franco.
asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu dundal sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy sunna sunu baay Ibrahim te mooy tabas julli gi ñaari rakk la rakk bu njëkk bi juróom-ñaari kabar la kabaru armal daf ciy bokk ñaareelu rakk bi juróom benn kabar la kabaru jogaale bi daf ci bokk ñoo ngi wax mbokk yi nekk ci biir jàkka ji ak ci kaw ak ci suuf ñu yaatalante insha allah ñu fexe ba ñëpp xej ñu defar sàppe yi waaw ñu fexe ba ñëpp xej insha allah ñu jubal sàppe yi bismillah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العصار عتلت وإذا الوحوش حصرت وإذا البهار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدليل وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده allahu akbar allahu akbar allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علم النفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد أيها الناس اتقوا الله سبحانه واشكروا على ما أنعم به من حماية الدين والنفس والمال والعرض حمالكم الدين بما أقام عليه من الآيات البينات على صحته لتأخذوا به عن بصيرة وبرهان وحمى لكم الدين بما رتب على القيام به من الثواب لترغبوا فيه وتستقيموا عليه وحمى لكم الدين بما رتب على مخالفته من الإقاب حتى لا تخرج عنه وحمى لكم الدين بما كتب عليكم من الجهاد بالمال والنفس لتحملوا لتحموه وتدافعوا عنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بقيتي الله تبارك وتعالى gilaw bu nu tambalé ci sunu turu borom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk yi ci yàlla mbokk yi nanu ragal yàlla subhanahu wa taala ginnaaw ba nu ko ragalee nan ko sant xam ngeen ne bokk na ci tax ñu war a ragal yàlla mooy tabaski bii ñuy def sunu borom subhanahu wa taala moo nu xéewalale tabaski mu nekk feet waaye lan moo tax sunu borom subhanahu wa taala def ko muy feet ci ñun mooy ñett mbir moo tax bi ci njëkk mooy jaam bu nangul boroomam soxna su déggal jëkkëram doom ju nangul baayam ñett ñi bi ñu àndee jaam bi nangul boroomam soxna si nangul borom këram doom ji déggal baayam yàlla mu ne ñii jar nañoo feetal ñii jar nañoo sargal moo tax sunu borom subhanahu wa taala daal di leen di indil tabaski ñett ñooñu xam ngeen leen Ibrahima la ak Haajara ak Ismail alayhimu salaam mbokk julit yi nanu sant yàlla subhanahu wa taala ci xéewal yim ñu defal xéewal yooyu bokk na ci bi ci njëkk min himayati diin wal nafs wal maal wal arab xam ngeen ne fi nu toll tey ci Sénégal doo xëy bis lu dul nga dégg rey nañ agressé nañ sàcc nañ siif nañ violé nañ bokk na ci li yokk lool nag régime bi fi nekkoon seen ndëngate ba ñu dem dindi peine de mort peine de mort bi xam ngeen ne du woon bu lislaam lislaam moom li mu xam mooy ku rey nit dañ laa war a rey walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab laallakum tattaquun borom bi subhaanahu wa taala moo ne ku rey nit nañ ko rey bu ngeen ko defee rek yéen ñëpp da ngeen di dund waaye xam ngeen ne nit ñi ci àddina def ci am ñoo xam ne ci ginnaaw yahuud yi lañ nekk ak franc-maçon yi ñooñu ñoo leen di financé di leen poussé comme ñoom tamit jànguñu seen diine léeg-léeg loolu day tax suñ nee ne yàlla lii la wax ñoom tamit ñu daal di indi seen xalaat ne yàlla lii la wax waaye l'islam dafa ñëw pour aar ñeenti mbir bu ci njëkk mooy diine islam dafa ñëw pour aar diine aar bakkan aar alal aar der ñeenti yii yàlla subhaanahu wa taala moo ko yoreel boppam bàyyiwu ko ci loxo doomu aadama bàyyiwu ko ci loxo mbindeef bàyyiwu ko ci loxo nit yii yàlla subhaanahu wa taala moo wàccee alquraanam yàlla moo wàccee yoonam daa di sant doomu aadama yi ne yoon wii yéen ñëpp na ngeen ci ne caw ñëpp ci yem buur ak baadoola ku xam ak ku xamul mag ak ndaw boo ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah nekk jullit ci yoon wi nga war a jaar waaye tey li doy waar mooy da ngay gis ab jullit bu taxaw daan ne man peine de mort bi bu ñu ko waroon delloo assemblée man du ma ko wote c'est parce que rey nit ñu reyaat keneen loolu moom c'est barbare te pourtant sunu borom subhanahu wa taala mu ne xamaalakumu diin yàlla maa leen aaral diine bi ma aqaama alayhi min al ayat al bayinat yàlla nan la nu aaralee diine ba diine ji kenn du ko mën a yàq ba diine ji kenn du la ci mën a dugal say bànneexi bakkan gis ngeen tey démb la woon arafa tey moo waroon nekk julli te tey mooy julli waaye ay nit danañ jóg ne duñ julli tey est-ce que terewul am ñu julli ah ñooñu ñooy taaifatul mansuur lu àdduna lëndëm lëndëm dina am ay nit yu fippu yu jàpp ci yàlla kenn mënu lu leen dara bu ay bomb doon waddit danañ topp yàlla kenn mënu ci dërëm parce que ñooñu yàlla rek lañ ragal yàlla lañ bëgg yàlla lañ def seen kanam topp ñu ma sàmba topp ñu ma demba yàlla rek atiullah wa atiu rasul yàlla rek lañ topp su ko defee yàlla moomu moo ñu aaral diine nan la ñu yàlla aaralee diine mooy mu indil ñu ay aaya alquran yu leer nañ ayatin bayinat yu wér këng jógee ci moom noonu la ñu yàlla aaralee diine képp ku ñëw bëgg a dugal diine ji say bànneexi bakkan ñu lànk parce que aaya yi dafa ne li nga indi du dëgg mbokk yi su kenn ñëwoon tey nenu moom ab yonent la dañ ko war a topp fan la ñuy xamee ne waajooju li mu wax du dëgg dañuy delluwaat ci alquran rek ñu fekk yàlla mu ne muhammadu rasulullah ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa xaatama nabiyin ñu xam ne waa jooju waxul dëgg ñu sànni ko fële topp yonent bi su kenn ñëwoon nañu bu leen julli bu ñu sonn nañu delluwaat ci alquran rek ñu fekk yàlla mu ne ñu wa aqimu salaa julli leen xaafizu ala salawat julli leen inna salata kaanat alal muminina kitaaban mawquut noonu la yàlla aaree diine ji alquran mooy aar diine ji loola tax képp ku indi dara ne la lii lañ war a def moom waajooju li mu indi nañ leen ko teg ci alquran yàlla mu ne wasinu bil qistaati al mustaqim na ngeen ko peese waajooju li mu indi peese ko rek soo ko peesee rek su fekkee tolloo naag ñaari balance yi benn bi mooy alquran benn bi mooy sunna nga ni waaji li nga wax dëgg la su fekkee peese nga ko nekku ci nga jël waajooju li mu indi sànni ko ca ñag ba kon yàlla moo nu aaral diine pour diine wér li taaxuzu bihi an basira wa burhan ndax diine ji mun ñu ngi koo jël ci lu leer waaye am ay dalil yoo xam ne buñ la laajee rek nga indi sa dalil xoolal tey koo xam ne dañ ko ne lu tax julli woo tey mu ne presque waa Sénégal julli wu ñu tey ndax loolu dalil la loolu du dalil dalil bi mooy suñ la laajee lu tax nga julli tey am nga dalil démb la woon Arafat yonent bi nee na bu ñu taxawee Arafat ca suba sa muy julli lii leer na amul lambatu amul tappale li fi nekk rek mooy leer na nañ alxaqu min rabbik fala takunanna min almumtarin kun ilxaq abdan wa abdulxaqi hurran nekkal jaamu dëgg ndax jaamu dëgg gor la mbokk yi fa maza baada alxaq illa dalal ginnaaw dëgg lan moo fi nekk caaxaan rek nanu ragal yàlla yàlla aar diina ji kenn du ci mun a def lu ci bokkul kenn du ci mun a tappale soo ci indee lu ci bokkul benn xale bu ndaw mooy jot ne la lii nga indi dara bokk ci nga daal di koy jël delloo sunu borom moo aar diina ji wa xamaalakum diin bima rattaba ala alqiyaami bihi min sawaab li targabu fihi wa tastaqimu alayhi sunu borom moo nu aaral diina ji def ci ay tiyaaba yu bari nag mu ne ku def lii rek am tiyaaba ku wax li am tiyaaba ku julli li am tiyaaba ku woor li am tiyaaba xoolal koor giñ doon woor démb muy kooru arafaat soo ko wooree lan lañ lay ba- baal ci bàkkaar ñaari at soo wooree benn bis boobu démb ñu baal la bàkkaaru ñaari at léegi nag nga gis koo xam ne moom ndeysaan wóoru ko démb soo ko réew tax mu ne damay bàyyi ba suba ndax suba la sunu arafaat yéen waa Sénégal fan ngeen jëlee arafaat arafaat fan la nekk ci Sénégal mbaadu arafaat bii ci wetu Grand Yoff boobu mooy seen arafat arafat nekkul fii arafat ma nga ca mam- mamlakal arabiya saudiya arafat ma nga ca booy génn makk ma nga ca xeer ya ca montagne ya fa sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam taxawoon bisu ajam gu mujj mu naan sahaaba yi xuzu anni manasikakum xool leen ci man nu ngeen di jaamoo yàlla xool leen ma bu baax ngeen déglu ma amaana barab bii ma taxaw dootuma fi taxawaat aaya bi daal di wàcc al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al islaama diina borom bi subhaanahu wa taala ne tey la diina ji mat amul leneen luñ ci yokk kon nanu leer ne amunu arafaat ku woor tey amoo arafaat da ngaa woor bisu julli te bisu julli araam naa woor tey kenn waru ko woor parce que tey bisu julli la mbokk yi yàlla moo nu aaral diine def ci ay tiyaaba pour ñu mun koo xemmem suñ ne ku woor bisu sàngam yàlla baal la da ngay gis ku jullit bu gëm yàlla daw woor ngir yàlla baal ko suñ ne ku julli sàngam yàlla baal la nga gis jullit bu daw def ko ngir yàlla baal ko loolu la yàlla aaree diine ji waaye yàlla aar na diine ji pour ñu mën a jub li tastaqimu bihi pour ñu mën a jub ci diine ji wa xamaalakum diin bima rattaba ala muxaalafatihi min al iqaab waaye yàlla aar na diine ji ci yaram yàlla aar na diine ji ci jaaseem yàlla moo ne ku njaaloo nañ ko caw téeméeri yar bu fekkee amul soxna su fekkee dafa sangewu nañ ko rey ku sàcc nañ dagg loxo bi ku rey nit nañ ko rey agresseur nañu dagg loxo ndeyjoor bi ak tànk càmmoñ bi loolu buñ ko defoon dëkk bi na jub dëkk bi na caw jub xocc ndax dëkk yuñ koy def di nga toog juróom fukki at doo fa dégg ku ñu rey mais xool leen Sénégal tey réewande gi fi nekk xool leen ñàkk jombeeg ñàkk yar bi fi nekk koo waxal démb ci mujj démb sama buntu kër laa toog benn jigéen ñëw seet si ma di ma wax mbiru boppam ci tabaski ne ma gis nga dama tollu diggante li ma amoon yëpp dépassé naa ko c'est parce que sama frère dafa rey nit mu ngi ci kaso bi lépp lu ma am rek ci loolu laa koy def pour mu dund xoolal lan moo tax mu rey nit juróomi dërëm juróomi dërëm apprenti xuloog apprenti delloo ma wecc delloowuma la rek nga jël sa paaka jam xoola nit ñi ni ñu mel koo waxal rek léegi dinaan xaar ma dem sama kër te ñëw lu muy jëli jaasi su ko defee nit ñi naan daw leen loolu li ko waral mooy ñàkk dund diine ñàkk a topp li yàlla wax ñàkk a topp lislaam looloo tax tey lii am kon waru gar la ci jullit yi tey góor ak jigéen mag ak ndaw kilifa diine yeeg ñeneen ñi topp seen ginnaaw ñoom ñëpp ñu jóg pour réew mi nu delloo ko ci loxoy borom bi tabaraka wa taala ñu génne ko ci loxoy laïcité ñu delloo ko ci l'islam su fekkee yaafuus nañ ba loolu munta nekk moo li fi Ablaye Wade jële woon boog nan ko fi delloo lim fi fekkoon mooy li fi tiitaloon nit ñi sax ba nit ñi xaw a tane am sécurité bu ndaw mooy peine de mort bi mu fi jëlee mbokk jullit yi lii da leen di won ne sunu góorgóorluwul am ñu baax ñu ñu jiite sunu réew du ñu nekk ci jàmm bu ngeen amul ay jullit yu leen jiite du ngeen nekk ci jàmm tey du ngeen nekk ci jàmm suba parce que jullit mooy jiite ay jullit xam ne ay jullit la jiite mu xam ne ëllëg dana taxaw ci kanamu yàlla yàlla laaj ko peuple bi Omar ibn Abdul Aziz amoon na ministre boo xam ne lan moo doon fonction am mooy ragalal yàlla kooku loolu rek lay liggéey ci ginnaaw amirul muminin lay toog su amirul muminin waxee ba ci yàgg mu daal di rëkk ci ginnaawam su amir gestoo mu ne ko ragalal yàlla ragalal yàlla fan la ñuy jëlee amir boobu Omar ibnul Xattaab kenn ci sahaaba yi gént na gis Omar yowmal qiyaam moo ngi ñàkk tooy xat jël serviette di fomp sahaaba bi ne ko waa Omar sa ñàkk bi lu ko waral mu ne ko bi ma bi ma nekkee amirul muminin jiite jullit yi dafa am benn pont bu yàqu woon ci Iraq ay xar di ko traversé benn pont daa di jam mbote benn mbote ci xar ya mbote bi daa di tatanoos daa di dee moom la ma yàlla di laaj tey lu tax defaroo woon yoon bi yow Omar lu tax defaroo woon yoon bi kon mbokk yi ñii ñoom kon lan la leen war a laaj la ilaha illallah kon ñii lan la leen war a laaj yow Omar lu tax defaroo woo yoon bi ba mbote mi dee ñii ay nit ñooy dee tey ay nit ñooy dee ci yoonu hôpital da ngay gis malade bu tëdd ñu naan kan moo ko garanti ba mu dee barki démb dégg ngeen ko hôpital Thiaroye ndaw suñ jële fii ci sóori géejawaay fii ci sóori géejawaay lañ ko jële bind ko kayit yóbbu ko Thiaroye mu yegsi bunt bu mu fëgg ñooñu ne ko ab taluñu la ba ndaw si noonu la faatoo ak liir bi nekkoon ci biiram ana yërmande yàlla ana jullit yi ana diine benn waay am na ñaari doom di wër hôpital yi ñoom ñoo koy téyel doom yi amul hôpital bu ko téye hôpital bu nekk mu dem amul hôpital bu ko téye ba xale yi dee ci loxoom mu daal di koy def ci maalu taxi dawal oto bi ñu béeg xale yi loolu fan lañ jëm loolu boo demee ci hôpital yi loolu moo fa nekk soo demee ci biir dund jullit yi ci liggéeyukaay yi fekk ger moo fa nekk ger ku ñu joxul xaalis doo liggéey demal fu nekk dugal ci mairie yi demal demal sax tribunal yéegal demal ba ci magistrat yi dégg ngeen fi Sénégal ay magistrat yu ñu ger dégg ngeen ko wala déggu leen ko soo demee nga yéeg ba ci kaw da ngay fekk gendarmerie ñu ngi fay wax mbirum dara mais fan la jullit yi jëm te ñun ñooñu ñëpp ñooñu def loolu yëpp ay jullit lañ barki démb dégg ngeen rajo bi ndaw si nga xam ne dafa am doom ak jullit jullit bi nangu doom ji waaye jullit bi nekk jullit bu saay-saay dóor baayam ñu tëj ko kaso ndaw si dem di nangu ju doom ji waa kër gi ne duñ ko jox doom ji waa kër gi ñëw ci rajo bi di accuser ndaw si naan ndaw si mandikat la ndaw si day jaay boppam ndaw si du jullit ñu wax fi mu bokk ñu ne du jullit ndaw si ca suba sa dafa ñëw ci rajo bi daan ne d'accord naa man du ma jullit di damay naan waaye maag jullit yi ñooy naanandoo te sax ki ma def nii maag moom dañoo màndi woon mu sëy ak man ma jëla ci ëmb kon kay bu leen ma wax dara ah nañu xoolaat suñu bopp yàlla moo nu aaral diine pour ñu mën a nekk ci diine ñu mën a dund dund bu leer hatta la taxruju anhu ba du nu mën a génn diine gi moo tax yàlla jël yaram teg mais société boo dem luwaa boo gis dafa am ay yar luwaa boo gis am na yar yu ñu teg soo defee lii lii la soo defee lii lii la yàlla nag moo xam alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir yàlla moo bind nit moo ko xam moo tax yàlla mu ne loxo bi comme day jël lu moomul nañ ko dagg suñ ko daggee ñeneen ñëpp bu ñu gisee lii kenn dootul jël loo moomul xoolal tey ñu ngi dóor sàcc yi ñu ngi leen di rey est-ce que yenn saa yi bu ñu jàppee sàpp sàcc ci koñ yi ni ñu koy def dañ koy rey balaa police ñëw ñu ngi tëj ñoo ngi rey ñoo ngi dóor mais est-ce que li ñu bëgg am nañ ko kenn amu ko ba tey ñu ngi jël waaye bu ñu essayé woon li yàlla wax te loolu yàlla dong lañ ko bañal waaye nangul nañ ko sax docteur yi nit day feebar léegi dem hôpital docteur yi xool ko daan ne kii dañoo war a dagg tànk bi ñu ne waay sa waay dañu war a dagg sa tànk mu ne dagg leen ñu woo ay mbokkam ñu ne ñooñu ne lu ngeen ñu ci woo dagg leen ko waaw lu tax ngeen nangu docteur bi wax ne dañoo war a dagg loxo bi ñu dagg ko dañoo war a dagg tànk bi ñu dagg ko yàlla ne dañoo war a dagg ngeen ne kenn du dagg te waa ji dafa feebar lan mooy feebaram mooy sàcc la suñu borom subhanahu wa taala moo nu wàcceel diine mbokk yi allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walillahi alhamd allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar kasira wa subhanallahi bukratan wa asila wa laqad xama nufus yàlla moo aar bakkan yi ndax yàlla moo moom bakkan yi mbokk yi sunu bakkan yi kenn moomu ko ku dul yàlla ma samba moomu ko ma demba moomu ko yàllaa ko moom yàlla moomu moom ko bim nuy bind kenn fekkewu ko sunuy rey kenn du ko fekke kenn du ci mën tus képp koo fi yaakaar buñ ko nee diw dee na day tiit daan ne loolu kañ la kon kay xam nga ne xamul dara te amul ku yàlla di xaar ci bakkanu nit kon yàlla moo moom nit moo moom bakkan yi moom sunu borom moo wàcce yoonam akkada tahrimiha wa hormatuha yàlla moo araamal ku rey nit yàlla moo ñoŋal nit moo ko aar ci téeréem bu tedd bi ak sunna yonent alayhi salaatu wasalaam lan moo tax yàlla araamal ku rey nit mooy lan li tastaqima al mujtama pour société bi daal di jub société bi foog am lu ñu ragal société bi foog am yàgg wu leen tiim ñu ragal ko xoolal yonent alayhi salaatu wasalaam bi muy dund nga xam ne moo doon àtte moo yor luwaa bi dund na ba dee benn jigéen la masa rey ci yoonu yàlla benn góor lañu musa rey te ñoom ñaar ñoom ñoo ñëw feeñal seen bopp ne dañoo njaaloo ndaw si ñëw na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yonent fii may wax ak yow dama ëmb te doom ji amul bàyyi yonent ne waaw kii est-ce que wér na ñu ne wér na kay mu ne ko demal nga toog ba nga am doom nga demal nga ba nga am doom pour pour mu ubbil ko bunt bu ndaw si demee fàtte tuub waaye ndaw si xam na lim def xam na dafa dajeeg boroomam xam nga mi ngi mi ngi yor bàkkaar foog bàkkaar boobu mu setal ko ndaw si dem am doom daal di ñëwaat daan na yonent xàmme nga ma mu ne ko déedéet mu ne ko maay ndaw si amoon doom nga ni ma demal ba nga am doom am naa doom démb mu ngi nii yonent defal li yàlla wax ci man bëgguma dajeeg yàlla maa ngi yor bàkkaar yonent bi ne demal nga nàmpal ko ba mu fer ndaw si dem nàmpalaat ko ba mu fer te yonent bi bu yaab loon na ko bunt pour mu demaat mu ñëw ne nàmpal naa ko fer na xoolal mu ngi nii yor mburu mun na koo lekkal boppam yonent bi ne aqimu xaddallahi alayha def leen li yàlla wax ci moom gaa yi jël sagar yi daal di koy muur jël xeer yi commencé ko koo dóor Xaalid ibnul Walid moo jël benn xeer wu rëy dóor ko ci bopp bi bopp bi daal di tasaaroo yonent bi ne xaalid ma laqad taaba tawbatan law qusimat ahla almadina la wasiathum ndaw si tuub na tuub boo xam ne waa madina yëpp bu ñu bàkkaaroon naan sàngara njaaloo bu ñu leen séddalee tiyaabay ndaw si ñoom ñëpp danañ dugg aljanna kooko indi boppam ku góor ko ba mu gisee loolu mu ngi tudd maïs mu ñëw ne yonent bi man tamit dama njaaloo waaye xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxul gaa yi ndaw si bi mu ñëwee da ko dama njaaloo waxu ko kan la kan la waaye yow kan moo la def loolu moom yoonam nekk ci loolu gis nga parce que buggul daje kenn ci jullit yi xelam di dem ci yow ci lu bon loo def gis nga sutura yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndaw si moo indi boppam waajee indi boppam waaye gis nga loolu mooy yoon wa yonent bi ñaar yooyu ci dundam ñaar yooyu la mës a def kon yàlla moo aar bakkan pour société mën a jub pour société mën a baax pour nit ñi ragal yàlla pour nit ñi xam ne am nañu boroom bu nu topp suñ ko moyee am na luy dal seen kaw waaye xoolal bi ñu ubbee bi ñu ubbee mbon gi bi ñu ubbee banditisme bi ñu nekkee sànni lu waay yàlla fële indi lu waay doomu aadama dafa ne doomu aadama moo am yërmande est-ce que baax na dara baaxul dëkk bi dara jubu fi jullit ñaa ngi nii jàdd ku nekk di def loola neex rey nit yomb ba mel ne weñ xoolal tey xëy leen suba di xool nit ñi ni ñuy deewee xool leen nit ñi ni ñuy deewee bakkan doomu aadama nu mu yombee te yàlla subhanahu wa taala wax ci alquran mu ne rey nit moo ngi mel ne bokkaale kon gis ngeen bokkaale nu mu doye waar wallazina la yad'uuna ma allah ilahan axar wala yaqtuluuna an-nafsa allati harrama allah illa bil haqq suñu borom nee na am na ñoo xam ne du ñu bokkaale am na ñoo xam ne du ñu rey bakkan bakkan boo xam ne yàlla dafa araamal ku ko rey sunu borom ne qul taalaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay wa bilwalidayni ihsanan wala taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تق- تعقلون sunu borom ne ñëw leen ma wax leen li yàlla araamal ci yéen mooy bu leen bokkaale bàyyi leen bokkaale waaye xeet woo xam ne dañuy bokkaale rey nit dina fa yomb réew moo xamante ne gëmuñu yàlla ay nit lañu gëm ci ay nit lañu tënku ñooy ñoo leen di wax def leen bàyyi leen du yàlla réew moomu foog rey fa nit yomb ndax loolu mooy wane ne pas-pas yi wérul ku sa pas-pas wérul lu la neex nga def bàyyi leen bokkaale mu ne na ngeen déggal seeni ndey ak seen bàyyi bu leen rey seeni doom ndax ragal ñàkk mooy planification familiale bi ñuy def di rey ay doom ndax ragal ñàkk waxuma sax planning planning waaye da ngay gis ku am doom dugal ci foos ku am doom takk ci mbuus ba mu dee yàggul dara matul féeg deux- trois mois far nañ fi benn xale ci stade bi fii kooku moom sax alhamdulilah reyu ko indi na ko fajar gi daal di koy dugal ci diggante oto yi dem yoonam waaye ñaata xale ngeen di dégg ci mbedd yi ñu leen di rey ñaata yàlla nee na bu leen rey seeni doom ndax ragal ñàkk waaye man yàlla maa leen di dundal yéen bàyyi man yàlla maa leen di dundal yéen ndey yi man yàlla maay dundal xale yi moom sunu borom mu ne na ngeen sori lu ñaaw wala taqarabul fawahish sori leen lu ñaaw lépp lu ngeen dégg dafa ñaaw bu leen ko jege lu feeñ ak lu nëbb bu leen ko jege lu feeñ ak lu nëbb lépp lu ñaaw sori leen sunu borom subhanahu wa taala nee na bu leen rey bakkan wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bil haqq na ngeen moytu rey nit rawatina nit koo xam ne yàlla dafa araamal ku tuur deretam sunu borom nee na bu ngeen bëggee xam li ma leen dénk zalikum wasaakum bihi laallakum taaqiluun yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne moytu ndeku leen juróom-ñaar yi alagaate ijtanibu sab amu bi qaat moytu leen juróom-ñaar yi alagaate yooyu bokk na ci asirku billah bokkaale wa sihru njabar wa qatlu nafs rey bakkan allati harrama allah illa bilhaq mbokk yi yii yàlla ne nañ ko moytandiku benn lañ ci moytandikul fii dañuy bokkaale réew mi njabar kese la bal sax léegi ku bëgg a am alal da ngay nekk njabarkat cabinet yi ci mbedd yi foo tourné gis sëriñ buy bind foo tourné dégg rajo yi publicité maa mën da ngay dégg kuy wax maa mën maa mën dinaa yokk wërsëg dinaa guddal fan feebar bépp laay faj moo mbokk yi ku mun a faj lépp ku mun a joxe wërsëg tee ngaa jox sa bopp wërsëg ku mun a guddal fan bul dee bu sa way jur dee waaye comme nit ñi amuñu pas-pas bu wér da ngay gis nit ñi bu ñu xëyee dem rangi kooku ana ñu fi doon wax ne di way daan nit ñi di leen topp di leen déglu di rang seen buntu kër yi ana ñu tey daanu nañ wa yabqa ismu rabbika zul jalali wal kiram wallahi ana ñooñu tey ana ñu ngeen fi doon déglu ñoom xaw ma selbe ndoom ak ana ñu ay sëtu lëg daawur ak ana ñu tey du ñooñu ñoo leen doon wax mën na ñëpp topp leen ñuy seete journée dix mille francs ana ñu tey fen nañu ba sonn daanu nañ nit ñi xam nañ ne ñi nekkuñ ci dëgg mbokk yi dëgg gi dëggu yàlla la dëggu dëggu yàlla la njabarkat kenn du dem ci moom képp ku dem ci njabarkat ee beddi nga lislaam ndax sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ko wax yii yëpp ay mbir la yoo xam ne yàlla def ko tere rawatina nag rey bakkan mbokk yi bakkan dafa foor nanu góor góorlu ba teg fi loi boo xam ne moo nuy aar ci bakkan bi ñun ñëpp nanu ñor ñun jullit yi nanu jóg nanu ñor nanu delluwaat déglu li maam Abdul Aziz Dabbaax waxoon waa assemblée mu ne leen yéen waa assemblée na ngeen ragal yàlla ba loi bu leen di woteeloo na ngeen xool loi boobu lu ngeen di taxaw ëllëg amaam Allah ci kanamu yàlla wala ki nga xam ne day wote loi boo xam ne loi bi dafiy jële li yàlla bëgg allahu akbar yàlla bàyyi leen ngeen wote loi bi li yàlla bëgg ñu teg ko fale ngeen nekk fi ay fan ay semaine ay weer ay waxtu yàlla rey leen ngeen dem dugg bàmmeel yàlla dekkil leen ngeen taxaw am na benn waaye bu fi woote woon loi Ezzan anamu anamu dee na ma ngay layoog yàlla loi boobu lu taxoon mu wote ko nanu fàtte bu leen fàtte ne insha allah ne képp ku dee di nga taxaw kanamu yàlla yawma yaqumu naas li rabbil alamin danañ taxaw ci kanamu yàlla loolu sikki nekku ci bu yeboo kenn doñ ko fàtte te loi bu ñu atte fii rek yàlla dina ko attewaat ndax yàlla alaysa allahu bi ahkamil hakimin te nañu xam ne inil hukmu illa lillah kon yàlla dafa tere ku tuur bakkan ku tuur deret yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na la zawalu dunya ahwanu inda allah min qatli rajulin muslim yonent bi nee na ngeen jële fi àdduna daaneel asamaan taal géej gi mu tàkk jeex tàkk ngeen lem montagne yi lem suuf si moo gën a yomb ci yàlla ngeen rey benn nit jële fi àdduna moo gën a yomb ci yàlla rey benn bakkan yàlla nee na ci alquran képp ku rey benn nit yaa ngi mel ni fa ka annama qatala annaasa jamian wa man ahyaaha fa ka annama ahya annaasa jamia benn jigéen yonent bi nee na ma nga safara lu ko yóbbu safara mooy dafa yeew muus bàyyiwul muus mi lekk ba muus mi xiif dee yonent bi nee na ndaw soosu ma nga safara ndax muus moomu mu yeew bàyyiwu ko mu lekk kon ku tere jullit ñi lekk nag kon ku rey jullit ñi foo jëm xoolal tey addina bi nu ñuy reyee jullit yi xool leen bal fii bu ñu bu ñu dem beneen dëkk dañ xool suñu réew kenn ñemetul génn kenn ñemetul solu kenn ñemewutul tu takk kenn ñemewutul yor sa alal def ko sa poos koo gis mu ngi daw ba ci biir jàkka yi sax dañuy dend nii rek mais wóolante wuñu ba ci biir jàkka yi wóolante wuñ de koo gis bu ne allahu akbar mu ngi xool dàll mi mu ngi gestu bàyyi xel dàll yi sama dàll yi marokis marok la de marakis marok la mbaa gars yi duñ ko jël fuñ jëm koo dendal sax sa portable yaa ngi koy bàyyi xel boo ne allahu akbar yaa ngi ne nii xaw a bokk portable yi ndax wóolootoo ki nga dendal fan lañ jëm fan lañ jëm bu fekkee ni ñun ay jullit lañ wóolootuñu mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala ginnaaw bam ñu aaralee ñaar yooyu aaral nu diine aaral nu bakkan tere ku ko tuur yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp ku rey nit na nga yëg ne yow yàlla effacé na sa tur ci waa aljanna na nga yëg loolu yow aljanna dootoo fa demati parce que yow yaa ko tey yow yaa rey nit ki mbokk yi ci yàlla subhanahu wa taala nañu dégg aaya bi nu yàlla wax ne fayu li tax yàlla tëral ko fayu mooy pour ñu dund mu ne ku rey nit suñu fayoo ci moom rek ñeneen ñi gis loolu ñëpp dinañ moytu su ñëpp moytoo lan mooy am ñëpp daal di dund moo tax mu ne walakum fi lqisaasi xayaatun ya ulil albab mu ne laallakum tattaqun aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولقد حمى الله الأموال ni yàlla aaree diine yàlla aar bakkan noonu la yàlla aaree alal yàlla dafa tere ku jël alalu nit sunu borom subhanahu wa taala moonu alal sunuy alal moom yàlla mu ne wala taakulu amwalakum baynakum bil batil wa tadullu biha ila alxukam li taakulu fariqan min amwali nnas bil ismi wa antum taalamun mbokk yi xoolal tey nit ñi seen alal yi kenn mënatul tëdd ndax sa alal te yàlla moo aar alal mais xoolal alal jooju tey ki ko am boo tëddee doo nelaw ndax wóolootoo soo bàyyee oto ci mbedd mi sa xel du dal waxuma la yow yow moom ñi ma woo nekk ci mbedd mi bal sax sunu kër yi ngeen di gis fenêtre yeeg grillage yi ba ci jàkka ji soo laaj soo laajoon léegi fenêtre yii lu tax ngeen def ko giri def ko nii lu tax ngeen def ko nit ñi dañ lay tontu est ce que xar yeeg béy yi ñoo tax ñu def ko nii soo laajte woon buntu yi lu tax mu nekk buntu weñ lu ñu lay tontu mooy aar sunu alal alalu nit yàlla dafa tere ku ko yàq yàlla dafa tere ku pasar pasare alalu nit yàlla dafa tere ku jël alalu nit te àndul ak teeyu bakkanam alal yàllaa ko moom moo ko dénk nit moo tax moom yàlla mu ne bu leen lekk seen alal seen diggante ci neen ngeen ci woowante ci justice yi di dem tribunal am na ñoo xam ne nekk wuñ fi leen lu dul lekk alalu nit ñi jaay suufu nit jël benn terrain jaay ko fukki nit jël benn oto utal ko téeméeri carte grise jaay ko téeméeri nit parce que lan la yaa ngeeg juge yi yéen say xarit lañ soo ñëwee neexale ñu daal lay bàyyi nga ñibbi waaye bés a ngi ñëw di nga taxaw ci kanam yàlla amul juge amul procureur amul avocat yow kenn yaag yàlla loolu war nañ ko bàyyi xel de billahi wallahi taala bàyyi xel ne bis dina ñëw dinañ la wàcce sa kër wàcce la sa lal jaareel la ci buntu bu ndaw bi dugal ci morgue bi futti la ba nga set sang la saañ lépp loo xam ne pax la sang la yeew la teg la ci kanamu jàkk ji ne imam pare nañ ñëbbu la ba ci armée li gas ba mu xool dugal la fa ñëpp ñibbi bàyyi la ak borom bi su keroogee ana ana ana ñi la doon aar ana ñi nekkoon sa ginnaaw ngay def lu la neex ana ñooñu mbokk yi dellu leen tuuti rek ci histoire xool leen fii ci Sénégal xamoon ngeen ay nit yoo xam ne kenn gënu leen woon saay-saay kenn gënu leen woon a bandi ndax dañoo amoon autorité yu leen di aar waaye tey anañu ñu nga ca yàlla kan moo leen fa fekk di leen aar nanu bàyyi xel loolu alal yàllaa ko moom mu ne bu leen ko def sunu borom nee na bu leen lekk alalu nit ñi ndax loolu bàkkaar la te xam ngeen ne loolu bàkkaar la yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu moo tax mu ne nañu dagg loxo sàcc ku jël loo moomul nañ dagg sa loxo bu leen yaakaar ne tamit nag bu islam waxee nañu dagg loxo nit fu ñu tourné rek dañu war di daggi loxo di daggi loxo déedéet dafa am taux boo xam ne boo ko jëlee boo ko sàccee ñu enquête xool lan moo tax nga sàcc waaye kii dafa xiif wala dafa mar wala dafa rafle wala dafa feebar lan moo ko jot ñu gis ne kii daal bandi kese la saay saay la daa bañ a liggéeyi dafa bëgg lu yomb ñu ne dagg leen loxo bi jeex na xoolal ki def alalam aar ko du tere gaa yi danañ def ay pexe bu ñu jëlee alal ji allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila ñeenteelu tomb bi mooy yàlla moo ñu aaral sunuy der yàlla bëggul ku yàq deru nit moo xam jikkoom la moo xam société bi la yàlla bëggul ku yàq deru nit jàngeen alquran yàlla mu ne ci alquran laa yasxar qawmun min qawm nit warul ree nit sunu borom ne subhanahu wa taala yonent bi alayhi salatu wasalaam ne man wajadtumuuhu yaamal amala qawmi luut faqtuluuhu ku ngeen fekk muy def mbirum góor jigéen na ngeen ko rey pour société bi set la xoolal tey col ko góor jigéen ñi am na yére yu xew bal sax ci jàkka ji ak ñu julli tabaski ñu ci bëri dañ koo sol te xamuñu ne ay yére góor jigéen lañ ngeen moytandiku yére yooyu ngeen di sollee nga xam ne sooy dindi loxo bi sax pour jàpp doo ko mën a wag ay yére góor jigéen la yàlla dafa aar société bi pour bu kenn def lu bon moo tax mu ne képp ku ngeen gis muy jëf jëfu góor jigéen mu ne na ngeen ko rey jàng ngeen ci alquran sunu borom subhanahu wa taala mu ne yàq deru nit jëw la te jëwkat mu ngi mel ne kuy lekk yàpp nit ku dee nit dee ñu war ko suuli laa yaqtab qawmun min qawm kenn warul xas keneen kenn warul jëw keneen sunu borom ne a yuhibbu ahadukum an yaakula laxma axihi mayitan fa karitumu ndax kenn ci yéen bëgg naa lekk yàpp mbokkam mu dee ñu waroon ko suuli mu ne bàyyi leen ma lekk ko kenn ci yéen bëgg na ko mu ne da ngeen koo bañ fa karitumu kon mu ne na ngeen ragal yàlla kon yàlla dafa aar diine yàlla aar bakkan yi yàlla aar alal waaye yàlla aar der yi yàlla buggul ku yàq deru nit zannu bil mu'mini xayran njortu leen ci jullit lu baax même boo xamee ci moom safaan njortul lu baax jàngeen is histoire imaamu malik lan moo tax ñu tuddee ko laa yufta wal maliku fil madine benn jigéen moo gaañu ñun ku ko sang benn jigéen ne man mun naa ko sang ñu ne ko ñëwal mu ñëw dugg ci biir simmi ndaw si di ko sang ba egg ci awra bi daa di kaata awra bi daal ne fii dey góor ñi yàgg nañ ko rek loxo ba daal di fay kole loxo bi kole fa mënatul génn ñi ci biti di xaar ndaw si pour mu pare ñu xaar xaar xaar ba sonn ndaw sànq ñu ne waaw bu ngeen xool sàngkat bi ndax pare na wala ñu ñëw ne ko pare nga mu ne man dama am problème de ñu ne luy sa problème mu ne sama loxo moo kale ci awra ndaw si ah ñu ñëw xëcc ba sonn munuñu ñenn ñu ne nañ dagg loxo ndaw si ñu ne ah kii dafa ñëwoon pour dimbali ko rek pour sang ko ngeen di dagg loxoom ñenn ñu ne kon nañu kuppati awra ndaw si ñu ne déedéet xanaa xamu leen ne néew loo ko def moom muy dund ñooyam ñu ne kon nu ñuy def ñu ne nañ laaji borom xam-xam yi masala bi luñ ci xam ñu wër dëkk bi di wër di wër di wër su ba ngoon gisuñu ko ko dindi Malik dafa tukki woon mu daal di ñibbisi ñu ne ko fekk nga fi ci dëkk bi benn problème mu ne luy problème bi ñu ne ko dafa am ko fi doon sang néew loxo bi dafa kole ca awra ba bañ na deñ mu ne laaj leen ko lu mu wax bi mu tollee foofu laaj leen ko lu mu wax bi mu sangee ba yegg foofu ñu ñëw ne ko bi nga sangee ndaw si ba yegg fii loo wax mu ne damaa ne fii dey góor ñi yàgg nañ fee ñu ne kon da nga koo tuumaal njaaloo léegi foog nga indi ñeenti seede ñeenti seede yoo xam ne du ñu bokk fu ñu jóge du ñu dëkkandoo xamante wuñu ah gis ngeen islaam fan ngay gis loolu te suñ ñëwee du ñu ne gis nañ leen ñu ànd kenn du wax loolu gis naa leen ñu ànd rek dafa yomb gis naa leen ñu dugg ci néeg déedéet loolu doyul gis naa leen ñu simmeeku loolu doyul fekk naa leen ñu tëdd loolu doyul da nga naan maa gis awra ku góor ki di dugg ci awra ku jigéen gi loolu foo koy jëlee moo tax lislaam bëgg ñu aar nit ñi yëf yi bañ a yomb xoolal tey journaux yi da ngay xëy rek gis ñu daal di bind sa tur wax ci lu bon jeex na su ko defee sa der daal di yàqu mënatuloo set ndax journal bi fi mu yegg sa tànk mënu faa yegg sa làmmiñ mënu faa yegg rajo bi bi mu ko waxee wax ji fi mu dem yow mënatoo faa yegg ñu ne ko kon danga kaa tuumaal njaaloo foog nga indi ñeenti seede mu ne aw ma seede Malik ne caw leen ko juróom-ñetti fukki yar allahu akbar ñu dóor ko benn ñaar ñett bi ñuy am juróom-ñetteelu fukki yar bi ñu ne ko ko caw yar loxo bi daal di deñ ñëpp jóg taxaw daan ne imaamu Malik mooy mufti madinatul munawar feek mu ngi fi kenn dootu fi ifta la yufta wal maliku fil madini loolu moo indi tur boobu madrasatul hijaz allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك gërëm sécurité bi ba أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mbokk yi ñoo ngi ñaanal yàlla ñi ki nga xam ne moo fi def jumaa ji moo fi def néegu yàlla bi ñoo ngi ñaanal ñi nga xam ne chaque jour bu ñuy julli ñoom ñooy ñoo yor sécurité bi muy waa police Guédiawaye ñoo ngi ñaanal mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy jàpp ci organisation bi bés bu nekk guddi ak bëccëg ñëpp yal na yàlla fay leen jërëjëf pap taqabbal allahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi xayr jazakumullah xayr jazakumullah xayr axi yal na yàlla fay leen yiw yal na yàlla fay leen salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum jazakumullah xayr sama mag la waaw